voilà donc asalaamualeykum gars yi ñu ngi leen di ziyaare bu baax a baax a baax a baax voilà donc euh, dañuy ñëw am ak yéen waxtaan euh, waxtaan bu am solo te xëy na comme ni ma déggee tey kenn ci Euh, journaliste du journaliste parce que journalist moom mooy ñiy génne information bu baax bi mais kenn ci journaliste euh, ñu am ay propos yu ñu yëkkati jëmale ko ci mbirum may a nduur voilà defe naa yàgg na battre recordu heure moom waaye heure bii moom gaw ma ne mus naa cee live agum moom ndax bii moom mooy minuit euh, vingt-deux moo jot ci ñun Euh, dix ans maanaam soi-disant cinq heures vingt deux du matin voilà donc euh, dañu fas yéene rek génne information bi comme ça ngeen yeewu waale ko ndax euh, solidarité bi ñu gis démb ci Sénégal man nag dama ko tuddee rek la solidarité des mercenaires ndax Sénégal Euh, bi ñuy wax waxu mari euh, Maïmouna Ndour bi rek am na vingt cinq personnes daanaka yu génn àddina fële ci Saint-Louis euh, balaa vingt cinq personnes yooyu daanaka lii dee ci xale ci Sénégal kenn xamul nu mu toll waaye gisuñu benn solidarité gisuma ñi ñi mën a tuite nii mën a bind solidarité solidarité on est avec toi solidarité on t'aime on est nangam gisuma kenn ku ci bind wala ku ci wax donc ñun nag comme dañu ne toujours dañuy informer juste et vrai lii mooy li nga xam ne mooy xibaar yi ñu jot mun Mountaga si euh, xam naa nag yéen ñu bari di ngeen ma laaj lii ndax keroog nee naa leen may Maimouna Ndour euh, dafa am ku koy fayal fële ci port euh, euh, non euh, hôtel ba fële teeru bi ma leen dafa am suite suite bi waa ji nga xam ne moom mooy DG DG Fisales moom moo koy fayal suite bi un an la ko fay Fisales donc ginnaaw DG Fisalis bi Maimouna Ndour dafay génn aussi ak DG wu euh, port DG bu port Mountaga DG bu port autonome bu Dakar euh, Mountaga jabaram dafa suspecté Maimouna Ndour di génn ak jëkkëram mu am sax ñoo xam ne wax na ak ñoom ba ñu dégg ko mu ne leen dina jëflante ak moom euh, donc euh, dégg nañu may a nduur bi mu paree liggéey démb une ay booru une heure du matin la wàcc après DG bu poor boobu Mountaga Sy moo ko jël dugal ko ci otom ba ko jëlee léegi nag fa ñu dem ak lu ñu defak loolu man mënuma koo xam waaye xam naa daal ne mi ngi ko indi këram ci information yi ñu jot presque quatre heures ñii ñu ngi naan quatre heures dix du matin ñu ngi naan un peu avant quatre heures du matin ci ku wàcc une heure du matin donc loolu moo tax Maimouna Ndour indiwul otoom pour ñu mën a xam waaye jabar ji daf ko toppaloo DG bi ba ñu dem donc dégg naa crime passion donc euh, xëccoo beeg defalante beeg ba jam ko paaka ci loxo donc euh, encore une fois ñoom ñu ngi ci enquête yi ba léegi waaye dañ leen di jox rek buntu ne ki nga xam ne mooy jabaru Mountaga Sy moom mooy instigateur u crime Maimouna Ndour bi ça n'a rien à voir ak agression ak jël xaalis ak jël nangam tout c'est monté de toutes pièces ndax Maimouna nduur boo leen bàyyee xel boo leen xoolee sax voilà trois heures quarante cinq trois heures quarante cinq quatre heures dix boo xoolee c'est trente cinq minutes de différence te moom bi mu wàccee c'est une heure du matin voilà donc euh, jabaru Mountaga Sy bi daal en tout cas moom moo nekk ci ginnaaw lii lépp ak may Maimouna nduur donc pour gars yi dimbali ñu rek Euh, enquêteurs yi yéen a ngi fi yéen a ngi dégg bu baax ndax xam naa ne information yu bari yéen ci ñun ngeen koy jëlee boo leen ko jëlee di ngeen ko jëfandikoo euh, journalistes yi aussi sénégalais journalistes yi aussi mën ngeen jël information bi ndax xam naa ne yéen doo leen dem wuti information parce que bëggu leen dara luy dëgg yéen information boo leen ko jotee da ngeen di daw bëggu leen wax dëgg moo tax yéen ñëpp ngeen génn fi dégg kenn ku ne jël bigam tous les mercenaires l'association des mercenaires se sont rencontrés ngeen génn di fenn ci suba ba léegi ñun ñu xam li ñu xam rek ne tekk bàyyi leen ci biir parce que dafa am mag yu naan toujours ñu ne fen du béjjaaw gis nga boo bëggee ridiculiser groupe fenkat danga leen di bàyyi kenn ku nekk di tëbëka dal kenn ku nekk di def njaaxumam yow nga dajale say affaire rek say bomb rek nga toog nga leen di yóbbu gauche di leen yóbbu droite nga dajale say bomb toog dañu xalaatoon nag man xalaatoon naa ne nag di ngeen am xel parce que xam nga comme jigéen la te comme ni ma leen koy waxee toujours ñun aussi dañu am xol euh, ñun ay jigéen la euh, ñooñu jur te dañoo am ay doom yu jigéen am ay soxna donc jigéen du am problème rek xam nga nga génn di fusiller di dal ci kawam di xeex di xuloo waxoon nañ leen ci suba ne lépp deal la c'était tout monté de toutes pièces waaye yaakaaroon nañ ne journaliste sénégalais yi ak ñii nga xam ne ñoom ñooy taskatu xibaar yi muy journaliste ak chroniqueur ak ñoomin seen di ngeen génn wax dëgg dinaa leen wax nag beneen source dossier bi ñoom ñu ngi ci tànku étouffé dossier bi dossier bi doo leen ci dégg lu bari ñu ngi koy étouffé ndax mun Mountaga si DG Port xam ngeen relation ak Macky Sall c'est un membre de l'APR xam ngeen relation am ak Macky Sall ak waa APR donc li ngeen di xaar ci dossier bi doo leen ko ci am fii la ñuy toog pensée unique way xam ngeen koy indi violence ci dëkk bi xam ngeen kan moo tàmbali violence c'est ce qu'ils von fair ñun nag sama genre gi lii moo tax tey ñuy wax ci réseau yi ndax Sénégal dafa demoon ba tumuranke ci wax waxkatu dëkk daanaka boo ci jëlee benn journaliste bu mel ni Pape Alé Niang ak Moustapha Diop ak quelques-uns ak suñu jigéen yooyu nekk tey Walf ñoom Salma ak ñoom seen ak quelques uns ak Mame Biram Wàcc maanaam journalisme dafa tumuranke Sénégal parce que ñoom même bu ñu amee information bi ñemewuñu ko wax le mari mun a nduur am na ku bind nii le don de soi pour la patrie mu ne où est son mari son mari est en Casamance pendant deux ans jëkkëram mi ngi Casamance a Ndour c'est sa vie privée xam nga vie privée am la bu dee moom dafa bëgg am benn far ñaar juróom ay mbaraan je ne sais pas parce que Sénégal noonu lañ koy tuddee da ngay dégg ku ne am na ñaari mbaraan ak benn far wala am na benn far ak ñaari mbaraan je ne sais pas comment il il la l'appelle mais dama ne daal il faut mu génn moom mu leeralal sénégalais yi li nga xam ne mooy dëgg parce que y a des de surveillance xam nga Maimouna Ndour dëkkul foo xam ne amul caméra de surveillance laaj leen seen bopp Maimouna Ndour fay mu nekk en menace en danger kooku naka lay génne liggéeyu kaayam ñibbi këram presque quatre heures du matin moom dong cundung ak yàlla amul kenn ku ko sàmm man Ousmane Tounkara par exemple je vais vous dire moi Ousmane Tounkara je suis parti au Sénégal en 2019 dama leen di wax lii rek c'est pas pour rien ok je suis allé au Sénégal en 2019 j'avais toujours quatre à cinq gardes du corps ragaluma woon président Macky Sall man faalewuma Macky Sall mais c'était tout simplement Samba Boy yi maanaam defkatu ñaawtee fii comme les les uns et les autres ñi nga xam ne dañu bëgg defal seen bopp tour un à un su ma taxawee moom ñoom ma duma leen mais bu la nit féete ginnaaw wala dara tey gisuloo ko et sécurité loo ci def jar na ko j'avais engagé cinq gardes de sécurité à tout moment vingt quatre heures sur vingt quatre donc man xam naa ne Maïmouna Ndour elle est en elle est plus en danger que moi lii nag du attaque il faut nit ñi xam loolu ce que je suis en train de faire tout de suite là lii du attaque personnelle attaqué wu ma ko mais damay leeralal sénégalais yi ndax man biñ ma xamee ba léegi damay ñëw di leeral sénégalais yi li nga xam ne moo lëndëm ci seen xel yi ndax xam ngeen xel ne à minuit 32 de la nuit j'ai quel j'ai d'autres à à faire je pouvais aller dormir enjoy my life enjoy my family waaye dama ne woon bu ma bàyyee ba suuf sedd comme ni ko mag ñi waxee lii waxtaanu guddi la ma waxtaan ko ak sama mbokk sénégalais yi ngeen xam ne may Maimouna nduur Euh, du mbirum agression c'est plutôt crime de passion dañu bëgg nag mu leer dañu bëgg ñu fexe lépp moom mu génn rek wax ak nit ñi may mu ne du journaliste la na génn wax ak sénégalais yi ne leen tuub naa ko waaw dama doon génn ak nit soxnaam attaqué ma wala te wala génnuma sax ak moom dama doon wax ak moom des affaires lu ñu séq ñoom ñoo ko xam mais xam naa daal ne ndaw si dafa soupçonné jëkkëram bi mu soupçonné jëkkëram mu koy suivre di ko suivre di ko suivre ba def ay menaces di ko suivre di ko suivre di ko suivre ba démb mu ñëw mu lijjanti mu mu dem defe loolu nga xam ne moom mooy euh, li mu digle woon ak Maïmouna Ndour donc ce que je veux que vous sachiez mooy information yaa ngi ne gàññ gàññaaral jarul nëbbatu jarul daw ñoom am nañu ay caméra de surveillance ne leen ñu dem xooli caméra de surveillance yi duñ leen ko indil de ay dof-dof loolu la ñuy def ay dem questionné mbindaan bi kooku naan wala suñ ma kiyee nuñ may fayee billaay may mun a dafa baax waaw ñun newuñu leen may mun a dafa bon il faut ngeen xam lool Maïmouna Ndour, ce qu'elle a fait, c'est pas acceptable et on va porter plainte contre elle parce que mënuloo nga jiiñ ay doomu jàmbur yoo xam ne ñu ngi ci kaso nga jiiñ leen rey nit loolu duñ ko nangu loolu dinañ ko ko toppee mais il faut ngeen xam ne Maïmouna Ndour elle n'a pas été agressée non mu ne donc elle a deux copains plus que deux deux la ñu xam ñun deux la ñu waxagum mais man je pense que boo leen déggee amoon na fi benn paab sax ndeysaan bu mësa demoon ci teleem mu koy questionné paa bi ne ko am na lu ñu xam am nga xaw ma ñaata jëkkër am nga xaw ma ñaata mais ça c'est beside de point loolu vie privée la vie privée la mais damane il faut que ñoom ñu bàyyi xel ñu bàyyi xel ne sénégalais yi ils ne sont plus fous we not duped maanaam on n'est pas bête on est très intelligent te ànd nañoo ak suñu sago lii ngeen jël ci suba ba léegi bëgg koo jël octroyé waat ko mu sell mi et mu sell mi n'a rien à foutre avec vos conneries là xam nga il faut connaître la personne pour connaître quelle quelles sont les choses lesquelles que cette personne peut se mêler Ousmane Sonko du melewu ci situation yu mel nii Ousmane Sonko c'est pas le genre de personne que vous pensez Ousmane Sonko xolu jamaa am c'est quelqu'un qui ne peut pas voir une personne avoir du mal Ousmane Sonko mënul gis nit kuy am naqar moo tax bañ ngeen ko ba gis ngeen ne ñi faatu yépp ñi mu mën a jaale yépp daf leen di dem jaale ñi gaañu yépp daf leen di seeti ñi ñu jàpp yépp daf leen di seeti donc gars yi bàyyi leen xel pour xam ne cette affaire ça n'a rien avec Pastef ngeen bàyyi caaxaan Pastef comme ni ngeen ko déggee le mot c'est Pastef dañu fas yéene changer Sénégal te tappalekat yi fi nekkoon ñu tuddee seen bopp ay journaliste te ñuy ay mercenaire parce que mercenaire mooy kan mooy ki nga xam ne dañ koy fay pour mu jàllale information des des des des émissions sur commande loolu la ñu bëgg mu jeex ci Sénégal donc dama bëgg yéen ñëpp ngeen déglu ma bu baax may Maimouna nduur génnal nga wax ak sénégalais yi moo gën lii ngay def nii c'est pas normal voilà je sais que ta euh, maanaam sa situation santé améliorée na parce que sa mbindaan yi nee nañu supp nga commandé <coughs> donc commandé nga supp donc man ngaa naan supp nga am tuuti doole ak li nga mën a def ci révélation yépp nga génn nga waxtaan ak sénégalais yi ñu dégg la ñun on te jugera pas yàlla moo lay juger ci njaaloo wala mooy yàlla wala whatever you call loolu sa diggante la ak yàlla mais ñun li ñu bëgg mu leer mooy nga leeralal sénégalais yi ne tappale bi nga xam ne moom la ñu bëgg jël di ko tuddee Ousmane Sonko di ko yóbbu di ko joxe Pastef xam nga booy boobu moom nga xam ne baayam mooy le plus grand importeur de bière au Sénégal booy bi yor fetal juuda di yor fetal di di di di tiire fépp ci Sénégal nee na yaayoo le mort politique ñëw na di day attaqué waa Pastef ñu koy ne juuda rest your case noppalul maanaam bin bin parce que lii ngay def amul benn sens tu as déjà perdu la tête toi tu as perdu ta crédibilité tu as perdu ta crédibilité tu es mort politiquement yow kenn dootu la falati sax dara ci Sénégal et maintenant tu continues à être violent envers le président Ousmane Sonko loolu tamit dañ la ciy dànkaafu rek nga def ndànk parce que c'est pas sérieux c'est pas sérieux Juda c'est pas sérieux xamal sa bopp te nga dellu ginnaaw parce que ki ngay attaqué nawloowu la Ousmane Sonko nawloowu la déedéet du sa nawle Ousmane Sonko dafa jaar gauche yow dafa jaar droite yow nga jaar extrême gauche arrêtel il faut arrêter avec ça lii nga nekk di def daf lay yàqal rek xam nga ñun wax dëgg yàlla tu nous intéresses pas tu n'es pas un souci pour nous il faut sénégalais yi ngeen xam loolu de nous on ne soucie pas de vous maanaam ñun vous n'êtes pas des soucis pour nous déedéet ñun li ñuy def nii fayeekuwuñ ci xaaruñ ci fay xaaruñ ci jaaraama xaaruñ ci dara dañuy def rek te yàlla tax ndax payu yàlla mooy payoor bu baax bi donc payu yàlla lañ ciy xaar moo tax ngeen tuddee ay salafiste ngeen tuddee ñu ay extrémiste ngeen tuddee ñi ay pensée unique maanaam tur yi moom li ñu am ci tur yëpp boo leen ko dajalee oh vraiment arrêtez avec ça may wax gars yi suba yéen sénégalais yi laay woode je vous appelle demain demain les sénégalais mes frères et sœurs sénégalais je vous appelle demain ngeen génn ngeen génn massivement massivement parce que bu leen fàtte ne y a une dame Eh, ndeysaan notre sœur Mariama Sagna ndeysaan une dame unique set jullite baax cub invité woon Ousmane Sonko Kër Massar Kër Massar yépp ñëw wuyu si ko ba mu paree ñu jël bakkanam ba léegi ba suba amul benn enquête bu Macky Sall ubbi wala bu ay ñoñoom ubbi jëmale ko ci Mariama Sagna <coughs> ginnaaw Mariama Sagna il y des centaines de jeunes sénégalais qui ont perdu la vie quelques-uns parmi eux même dans les prisons ñu ngi leen di rey ci biir kaso yi di leen siif Macky Sall massawu ci kenn ñaata sénégalais ñoo dee barki démb rek bavure policière dóor nañ fi sénégalais un jeune responsable à Ngor et ils l'ont ay policier ñu ngi fii ci dëkk bi di def seeni banditisme di jël dëkk bi di ko jaay xam ngeen ñu bari ci ñoom ñu bari ci policier Macky Sall yi je vous dirai que daf leen sax relocate xam nga luy relocate euh, qu'est-ce que le mot relocate en en quoi le mot relocate en en en français relocate mooy lan ci tubaab ci français relocate ah relocate mooy lan bavure policière bi fi nekk dàmbooj jéemuñu ko fee tiire bal dàmbooj tiire wuñu ko fi bal fetal ay bal set bal ab sax journaliste Seneweb agressé wuñu ko fi duñu sama xarit man Seneweb xam ngeen ne duma ko laal salaam je les connais c'est Pape Abdoulaye Touré agressé wuñu ko fi suñu magu Pastef doyen sëy magi Pastef Kër Massar agressé wuñu ko fi sovagement ba mu ñàkk bakkanam relocate du affecté commissaire Anne commissaire démb dama bind poste bi yéen ñu bari ngeen may laaj lan mooy lii wala on n'a pas compris il faut expliquer commissaire Anne il a été envoyé à l'aéroport sans note de service xam nga bu ñuy toxal nit dañ lay defal note de service aéroport am na déjà commissaire dañ fa yóbbu commissaire Anne pour lakk ko fa commissaire Anne ci famille bu mag la bokk ci Sénégal mais duma laal mbiru famille bi parce que dañu bëgg a xam commissaire Anne ngeen xam commissaire dañ ko jël yóbbu ko aéroport international bu Blaise Diagne sans note de service xam ngeen loolu lu mu tekki mooy dañ ko fa jël nëbbu ko Macky Sall reykatu nitam yi alkaati yi mu jëloon pour ñu reyal ko ay nit alkaati yi mu jëloon pour ñu agressé ñu alkaati yi mu jëloon pour ñu jël suñu bàkkan lan lañu def dañu jël alkaati yooyu di leen toxal naa mbay saa di Diop lieutenant Mbaye Sadi Diop poor lañ ko yóbbu moom et pourtant lieutenant Mbaye Sadi Diop moom mi ngi nekkoon Saint-Louis waa Saint waa la Amadou sàll moom la doon liggéeyal ak moom di ko fournir xaalis bu doy muy jënd muy jël armes yi di entraîner ay nervi daf leen di recruter ba pare wan leen ni ñuy fetalee est-ce que comprendre ngeen li may wax bu baax Macky Sall reykatu nitam yi daf leen jël bi mu tiitee xam nga Macky Sall dafa tiit ñu bari xamuñu dafa tiit am na si bi muy wax nii mooy dafa toog mu ne gars yi lan mooy solution gars yi ne ko CPI mi ngi lay xaar tous les policiers les gendarmes les juges ñu bari ba ci Mamadou Seck Mamadou Seck keroog bi ñuy waxtaan ak Juan Branco ci moom daf ñu ne mu ne kooku maa leen koo gën a xam moom moo ma placé man su mandat de dépôt mu ne man dama dugg ci saalam rek ma gis ko mu takk montre bu cher defaru noonu ma ne ah un juge qui est payé de salaire normal dafa xañaaral Mamadou Seck mu ne j'ai compris tout de suite que cet imbécile est corrompu waaye bu leen fàtte yéen ñëpp vous aurez votre tour devant le coiffeur mbir mi tour la rek gars yi may woo sénégalais yi nag may woo sénégalais yi live yi dinañ dinañ leen yee ba ngeen yeewu incha allahu rabbi bu soobee yàlla mobilisation générale et populaire la ñuy woote suba ñépp ci terrain HLM Grand Yoff ñépp ñépp vous êtes invités au terrain HLM Grand Yoff sénégalais yépp HLM Grand Yoff pour dem ne les sept sages pour ñu xam ne sénégalais yi am nañu soutien sénégalais parce que ñu ngi subir pression bu mag les sept sages ñu ngi subir pression bu mag dem leen suba HLM Grand Yoff en masse marche bi c'est autorisé HLM Grand Yoff marche bi c'est autorisé dem leen en masse yéen ñépp nag suba terrain HLM Grand Yoff mobilisation générale et populaire dañu bëgg yéen ñépp ngeen dem taxaw ngeen soutenir élection yi ndax ñoom ci benn mentalité lañuy dox dañoo bëgg a nasaxal élection yi bëgguñu élection yi am <coughs> dañ ko bëgg a tëggaat comme ça ñu jéem waa tey la tey tey la excusez-moi samedi bi tey la tey bu ma nee suba comme man maa ngi ci guddi maa ngi jéggalu samedi bi tey la tey c'est aujourd'hui samedi à quinze heures il fait déjà cinq heures et quelques du matin presque 6 heures du matin chez vous donc à 15 heures aujourd'hui tey la voilà tey la tey tey tey terrain HLM Grand Yoff tey la à 15 heures ce samedi yéen ñëpp H terrain HLM Grand Yoff ginnaaw loolu euh, ñun aussi Amérique euh, xam naa suñu mbokku Amérique yi di ngeen yéex a gis message bi mais ñun tamit on se ressemble à la 116 116e adresse bi mi ngi nekk 117 West 116 117 West 116 c'est entre la Lenox Avenue. Adam Clinton Power Boulevard, 7e avenue, entre le Lenox et la 7e, devant la place de Mafal. Donc, nous invitons foofu sénégale yep, ñu bëgg rek ngeen xam ne mbirum Maimouna euh, nduur bi moom Francoulaye na tegoon a boor euh, soxna Mountaga Sy Mountaga Sy di DG wu port muy coro euh, ci Maimouna Ndour jabaram soupçonné ne a Nduur am na lu mu sekk ak jëkkëram jabaram jëflante ko ak a Nduur léegi nag ci fànn bu mu ko jëflantee ak moom loolu bàyyi nañ ko ci loxo investigateurs yi investigateurs yi ñoom dinañ leen wax naka la xewee ak nu mu ko defee ak naka la ko toppee ak fu mu ko toppee waaye nii la mbir mi demee donc ma bëggee yéen ñëpp ngeen dalal seen xel xëy na a Nduur dina am ngor ak njàmbaarte génn wax ak sénégalais yi parce que hôpital bi mu dem sax gars yi bëgguñu kenn xam ko nanguwuñu kenn gis ko nanguwuñu kenn xam ko nanguwuñu kenn teg ko bët wax nañu daal seeni kii ku nekk ñëw na def na ay euh, kaam nee na voilà nii lañ ko def déedéet voilà donc nañu waxante dëgg rek vraiment te euh, joxante cër te xam ne ñu ngi dund te dinañu dee bakkan bu dund dinañam dee te ñu xam ne ko aussi yàlla ñun ñëpp la fi nekkal te incha allah dëgg rek mooy mucc voilà dëgg rek mooy mucc lu ñu mën a def ci àdduna bi it bu ñu nekkul ci dëgg du dem bu ñu nekkee ci dëgg nag macha allah lépp lu ñu def rek yàlla dina ko barkeel donc gars yi maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ne continuer leen dëgër te ñu continuer maintenir moi je vous promets que tey laa gën a am maanaam détermination gën a dugg ci combat bi tey laa gën a dëgër te ñooñu nga xam ne aussi nee nañu ñun ay borom pensée unique la ñu voilà nangam nangam gis naa Pape Ndiaye mu profité moom it tey mu taal teleem bi fale euh, mu saa yow après gisoon naa euh, début bi ngay déconné mais après ñëw nga jubbanti donc jubbanti leen rek moo gën parce que tappale moom dafa jeex ci Sénégal cette nouvelle génération de Sénégalais ne vous laissera pas détruire le pays ça c'est fini xëy na di ngeen jéem sonn ngeen système la vous êtes fatigué en ce moment waaye focus nañu focus ci suñu ay élection focus ci suñu ay élection focus ci suñu ay élection Macky jox ñu date balaa le 2 avril nga nekk góor nga nekk gentleman nga toog nga fekkee élection yi ñu duma la nga def passation de service li ngay bañ nga def ko jàmm ak salaam gars yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu merci beaucoup merci bonne soirée bonne matinée chez vous au Sénégal